toog mobiliser république bi yëpp ministre yeeg député yeeg presse beeg askan wi pendant vingt quatre heures ci benn discours amul sens li am sens mooy li ñu nar a bébét li ñuy def nañ ko def ci terrain bi et dañ ko war a dindi parce que premier ministre yi fi jaaroon yëpp nattal ni ñu def li ñu waxoon ci seen déclaration de politique générale nga natt li am ci terrain bi souvent dafay waroon ñun gëm nañu urgence bi du foofu urgence bi fële amul sens et c'est inutile dafa laaj décret ñu jël décret le président la jël décret dafa laaj arrêté premier ministre mu jël arrêté su dafa laaj ñu dem assemblée ñu dindi ko maintenant suñu arsenal mais ñu dindi ko mais honnêtement dama laaj defal micro trottoir nga laaj juróom-ñaari nit yoo dajal ci fukki nit soo leen laajee dañu ne xaaruma ci dara amul sens parce que day perte de mobiliser république bi yëpp ñu toog assemblée pendant vingt quatre heures député opposition yi di yéeg di wàcc ay procédure ay defal nii di poser ay questions yaa waxoon ni ñu yokk assemblée xam nga luy xew assemblée urgence bi loolu bi sax lan la dañu fexe ñu tas assemblée bi delluwaat ci élection boo xam ne c'est digne élection assemblée nationale boo xam ne dafa méngoog régime bu bees bi parce que nañu jàpp ne Sénégalais 54 pour cent li ñu wax mooy ñii lañ jox réew mi te nekk assemblée nekkatul